ahousubillah min seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te di di jiital ci nuyoo ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu lañ koy ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel jamono ji moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax waaye nag mbokk yi ba tey suñu kàddu di bàyyi ko fii ci Touba guy mind ci màggal bi nga xamante ni ñu ko fi amal muy màggalu ko Serigne Cheikh coro Mbacké Serigne Cheikh Thioro nag doonoon kenn ci leeri Serigne Bara Mbacké macha allah ngeen gis na màggal gi doore nañ ko ci subaak léegi ci li nga xamante ne mooy njàngum alquranul karim ak ay ziar waaye di ziar ko nuyu Serigne Bass Thioro mi nga xamante ni moom mooy xalifab Serigne Cheikh Thioro Mbacké di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax a baax Touba Vision nag comme ni yéen ñu miinee rek macha allah. bépp màggal goo xamante ne xew na fii ci dëkk bi wala lu gën dëkk bi rek lu jëm ci lépp ci mbirum diine ñu leen koy indil tey ji nag ñu nekk fii ci guy mbind ñu fas yéene war leen lépp loo xamante ni am na fii ci màggal gi kon ne sotti kon ñu dikkaat ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu